Burkina Faso Guinée Bissau te daa neex a jàpp ci gàllaaj daa neex a jàpp ci gàllaaj Boy Niang Boy Niang ak a neex a jàpp Boy Niang Boy Niang sa sarax lañ xam ndox mu sedd yow dox nañ sa maayen ba pare ndax yaa ngi lox yow yaa ngi lox yow mosoo mel nii sa petit mosul xoki yow dox nañ sa maayen ba pare ndax yaa ngi lox yow yaa ngi lox yow mosoo mel nii sa bët yi mosul xokkee nii. changé nga barke Serigne Bamba changé nga sa bët yi dafa xonk sa bët yi xonk na xalaatu ko xalaatu ko si alxuraan xalaatu reer bi xalaatu ko xalaatoo reer kaay reer kaay reer kaay reer kaay reer doo ko xalaat reeral <laughs> Hein? donc signé na ba pare donc poignée de main l'ami, poignée de main échange de contrat. mais Buzz. bi bi bi perpévu le wala du perpévu. seen affiche. Aziz Aziz Aziz combat bi taxaw na wala taxaw ah kon taxaw na yàgg na jot nañu avance ñoom ñaar ñëpp Balla Gaye Boy Niang laa ilaaha illallaah